salaamaaleykum mbokk internet yu IYAT TV nuyu nañ leen euh, niñ koy defee jamono bu nekk ànd ak yéen ci waxtaan yi nga xam ne dañ koy waxtaanee réew mi jamono bu nekk ñu ngi ànd ak oustaz Abdoul Khadim Sarr ngeen xam ko lool fii ci IYAT TV euh, dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci biir waxtaan bisimilah oustaz. aoudu billahi min asheytan rajim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa man ahsanu qawlan mimman daa ila llahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi nuyu mbokki Sénégal di nuyu itam mbokki bitim réew ñi nga xam ne dañuy siifur di safoo seen bi di IATV ñëpp ñi ngi leen di nuyu te di leen siyaara te di leen ñaanal jàmm di ñaan suñ borom defal ñu jàmm ci suñu réew. Hmm. jërëjëf euh, oustaz ci nuyoo bu am solo bi yi ñëw rek ci li nga xam ne xew na fii ci semaine bi euh, ci jëmee ci li nga xam ne moom mooy euh, actualité. fi ma ciy njëkkee mooy li nga xam ne mooy décision bu conseil constitutionnel jël ngir neenal li nga xam ne moom mooy décret bi nga xam ne Macky Sall convoqué woon na ko ngir aj élection yi ban gis-gis nga am ci loolu nga xam ne euh, conseil constitutionnel def na ko démb. waaw kay jërëjëf conseil constitutionnel loolu ñu def nag dafa mel ne daa am lu des. Ah. parce que ñoom bi ñu annulé décret boobu nga xam ne Macky Sall da koo tegoon ci kaw i caaxaan nga xam ne tegu ko ci loi. ginnaaw bi biñ ko dindee ba pare dañoo waroon na la vingt cinq février na élection yàpp hmm. waaye ñoom defuñu loola en tout cas daal neenal nañ dogal bi waaye ba tey dafa mel ne le vingt bi kon day mel ne élection am ni ma déggee nit ñi commentaire ak ni ñuy waxee ak ni ma déggee eh, édition spéciale yi démb dafa mel ne conseil constitutionnel dëggalagut ban date war a def élection daa mel ne la def ne neenal na dogal bi comme neenal na ko ci man ni ma déggee ci sama gis-gis mooy comme neenal na ko rek mooy le 25 bi kon euh, maanaam élection daa war a am waaye Sénégal moom daanaka sur si man xom liñ jàng daa bokkut. man xaw ma conseil constitutionnel dafa wax ne euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ko sekk nañ toog ñu waxtaan ñu jàpp benn délai boo xam ne diggante fii ak le 2 avril la ñu ci amal élection yi. loolu mooy li Macky Sall bëggoon kon kay faawu dialogue am. fii ak 2 avril waaw. waaw xam nga gis nga am réew. Mhm. du tege ci ay waxtaan. Ah. am réew xam nga fu muy tege mhm. waxtaan wa ko jiitu ci lañ tënkoon ay ay ay sart ah. ne sart yi nañ ko respecté amatul luñ fi waxtaan Macky Sall ñaata la woote waxtaan mhm. waaye waxtaan wu ci nekk rek daanaka saa yu demee ba nga xam ne jekko nañ ko ci lay woote waxtaan est-ce que Sénégalais ñi ngi seetlu loolu hmm. Macky Sall mës a nekk ci position bu baax mukk di woote jalaw saa yu saa yu woote jalaw rek xamal ne nekk na ci point faible hmm. waaw léegi réew mi kay ay sart la am daa war waaye loolu luñ ciy waxtaanati. Hmm. neenaan nañ dogal bi kay le 25 février ñoom kay di ñu waroon wax mooy yéen candidats yi dem leen campagne yi. te xam ne le 25 élection day am. loolu moo doonoon di jàpp campagne nag oustaz mënu nekk ndax neuf jours a fi des nit ñi mënuñu ñi nga xam ne ñoom ñoo ay candidats. mënuñu dugg ci li nga xam ne moom mooy àll bi da amal seen campagne matériel électoral bi tamit kenn gisu ko loolu tamit dàqut li conseil constitutionnel wax est-ce campagne ñaata fan lañ ko daan def 21 waaw 21 jours lañu ko daan def dañu xool suur yi manqué ñu ñu dugal ko ci avril bu fekkente ne 9 jours moo manqué wala wala 10 jours moo manqué. Hmm. nañ ko avance ca ca weeru avril bee di ñëw. ñu tàmbalee campagne bis naka tay ñu tàmbalee campagne. bu ko defee 10 jours yi manqué. ñu dugal ko fe loolu nag waxtaan ko mën a indi imam. Ah, oustaz conseil man moo yor baat bu bi. Hmm. comme moo yor baat bu mujj bi politiciens yi moom ñoom seen waxtaan seen ay dil rek la ñuy teg waaye ginnaaw conseil constitutionnel moo yor bu mujj bi. la mu waroon a def bu yàgg mooy daa waroon a bàyyi ba démb muy doog génn daa waroon bañ koo dugalee recours bi rek mu teel caa tontu répondre su ko defee la le 25 février bi moom ak lu mën a xew rek élection day am waaye loolu lépp nag ñoom ci seen jëmmi bopp li ma doon wax ne ñoo seetaan institut ba institut ñëw dal seen kaw. parce que taxawaay bi ñu waroon am dëgg dëgg dëgg. ñoom ñan buñ ko amoon ca conseil constitutionnel ci boppam. Ah. taxawaay bi ñu waroon am buñ ko amoon dëgg dëgg dëgg mbir mu du agsi fii. Hmm. waaye gis nga mbir mi indi nañ ko ba mu agsi fii nekk ci ay coow ak coow naan nañ jalaw nañ jalaw daanaka amatul njëriñ bu ñu jalogee bëgg a pousse élection yi du sori te Macky Sall Sénégal dañoo doyal ci moom sëkk sëkk sëkk sëkk ba bu ñu sañoon sax benn bis du ko tegaat ci nguuram waaye nag bul fàtte na nag la ma la daan wax maa ngi koy continuer di ko wax ba tey xam naa ne bis bu defa ndànk de la daloon firaw na rek moo koy dal te firaw na bu ma saa yu ma ko waxee nag mooy mujj ñaaw mujj gu ñaaw ñu rey rey la rey goo xam ne yow wóor na ne say ñaawteef dong moo la andi fii te kenn ku na xam nga ne Macky Sall li mu ci moo ko andi fii jàpp ne dogal bi nga ne conseil constitutionnel jël na ko avantage su Macky Sall la ah déet ginnaaw ginnaaw du am la 25 kay ah. même bu fekkente ne day puus am na bëgg-bëggam mais nag ni ko avantage moom hmm. parce que tamit loo xam ne dañ koo fixé yow nga xam ne da ngaa judd fekk ko fi ñëpp ñëw kenn ñi mu ko mas a puus nga ñëw ne da koy puus même bu ca deux jours tege woon sax yow boo jàppee avantage la si yow du avantage kon loolu itam lu mat a bàyyi xel la waaye daal conseil constitutionnel dañoo war di jël seeni responsabilité saa yu réew mi tollee fenn fi walla kii yeeg yooyu ñu fexe ba jël seen responsabilité taxaw dëggal seen bopp waaye mbir mi jëru doon taayu baax si fi taayu ko ba daanaka euh, campagne bi ñu ko def daanaka semaine ci des. loolu li li li li ngay wax xaw naa wuute ak euh, ñi nga ñi nga xam ne. ñoom ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ñu ci ëpp li nga xam ne loolu la jàpp que ni lii arrangé wu leen conseil constitutionnel li mu def maanaam euh, tegu maanaam jaarul ci jaarul demewul comme ni ñu ko bëggee woon ñoom parce que ñoom li ñu bëggoon mooy 15 décembre bi ñu jàppoon ñu amal ko ci loolu. waaw loolu xam nga conseil constitutionnel dafa am yoo xam ne day fës ba ëpp daa am yoo xam ne nag doo ko sañ parce que day fës ba ëpp nag. parce que ñoom bu fekkente ne dañ ne la vingt cinq février la ñu war a def élection. nga gis fi mu ne ñetti bakkan rot na. waaw lu ko waral tuxale élection doo nga ko waral léegi tuxale élection mu indi ñàkk ñetti bakkan yu rot waaw ana moo ku mandaam jeex nag ki nga xam ne dañoo tuxale élection rek ñetti nit dee léegi nag bu fekkente ne da ngaa bëgg a continuer naan da ngay avancer date bi ñu la mayoon waaw léegi yow bu sa mandat jeexee nga bëgg fee toogaat bu boobaa naka lay demee ndegam bi nga fiy dese tuuti am na nañu pare joxe seen bakkan boo puusaatee ci mandat boo muumul nga yaakaar ne gën a jur jiyee day gën a jur na rek waaye daal li may wax te di ko wax mooy Macky Sall li mu def ci réew mi moom xam na ko ci ay ñawteef kon bu mu ci jéem a dolli beneen ñawteef nag di ko ci dolliwaat parce que lu mu ci gën a dolli ci ñawteef boppam dong lay gën a sonal nag hmm. loolu moom na ko sóoraale bu baax waaye daal élection yi xam nga Macky Sall dafa yeb Sénégalais yi sax yow toog ba nga xam ne même pas 24 heures ñu tàmbali campagne nga xëy xëy lekk ba rek raay sa koor daal ne waaw élection yi daal dama koy far kii ba beneen yoon Mm. mais loolu mooy ñàkk respecté Sénégalais yi waaye tamit politiciens yi ñëw jàppale ko ci parce que politiciens yi bu ñu meloon nañu war a mel du ñu may Macky Sall mukk fu mu yekkee nakam bay am fitu taxaw jàkkaarloo Sénégalais yi naan day poussé élection te itam su fekkente ne moom élection yi élection askan wi la nekkul ne kenn nita ko moom ginnaaw moom moomu ko amul sañ-sañu di puus wala muy àndal si te conseil constitutionnel ñoom Macky Sall demoon na fa àtte woon nañ lii yàgg ñu ne ko mandat kat mënoo koo yokk mënoo ko wàññi. léegi kay bu dikkee ba fii su fekkente ne 2 avril da ca yokk benn bis kon yokku na. Hmm. est-ce que yaa ngi may dégg. waaw 2016 ñoom ñoo ne Macky Sall amoo sañ-sañu wàññi amoo sañ-sañu yokk ku wàññi wut ko koo xam ne amoo sañ-sañu yo wàññi kay wax dëgg yàlla xam ne amoo sañ-sañu yokku. te 2 avril bu ñu ko rombee yokku na. kon kay xam nga ne conseil euh, constitutionnel jëluñu seen responsabilité foofu laay hmm. waxee rek. Euh, bu ñëwee ci li nga xam ne moom mooy moom la ñuy wax boobu ba léegi fan yi ñu ngi dégg ñuy wax euh, mbirum jaloog dialogue euh, négocier ku ci mel ni Ousmane Sonko ak Macky sàll euh, dégg nañ ci Alioune Tine Père ba ndaka nga gisee mbir moom nga xam ne xew na fi ci semaine waaw man de li may laaj rek mooy bi ñuy buntu xataal Ousmane Sonko ñoom fan lañ nekkoon lu teewoon ñu mën a dem wax ak Macky Sall nekkoon na bàyyi li muy teg doomi jàmbur ji jaaduwut Ousmane Sonko lu na teg nañ ko ci réew mi. waaye ñoom mosuñu maa gis mosumaa gis ñoom ñu dox ci tànk jàmm ne Macky Sall yaay tooñ bàyyi sa tooñ gi nga nekke gis nga nit bu nekkee ci am réew te nekk responsable na fexe ba assumer ay responsabilités waaye bu fekkante ne bu ñuy bundoxataal Ousmane Sonko ñëpp na cell kenn waxu ci amul kenn ku koy jàppale lu dul ndaw yu askanu senegal waaw léegi xam nga Macky Sall boo gisee dialogue bii li ko waral xam nga lu ko andi Ousmane Sonko rek ku ko andi parce que li ko waral mooy Macky Sall woote na dialogue ba tàyyi bañ demee ci seen dialogue ba. ba bil ba ne Ousmane Sonko du bokk dañoo jàppoon ne Ousmane Sonko kat la Abdou Karim Wade defoon ak Khalifa Ababacar Sall noonu lay def mooy lan mooy budul mën du doon keneen Ousmane Sonko nag roofal leen benn xale boo xam ne bàyyiwuñ ko woon xel xam nga Bassirou ñu ko xam bëriwul. Hmm. waaye bi Ousmane ne Bassirou sama daal gis nga Bassirou mooy Jomaay wala boog Jomaay mooy Sonko ngay dégg léegi nag Ousmane Bassirou Jomaay mi jàll nag tañ def sondage xam na kat booy bii kat mën nañoo gañe waaw léegi la fekk nag booy bi nar ñoo gañe est-ce que kon duñ jéem a def waxtaan jéem a def dialogue waaye dialogue def nañ ko ba tàyyi te te gisuñu ci benn solution boo xam ne bu baax la bu ñu mën a tirer leçon ana Khalifa Ababacar Sall du danoon naa bokk rek naa bokk rek te moom bu bokkee itam awma yaakaar na dina gañe waaw léegi suñ demee ba nga xam ne Ousmane ko roof na benn xale ñu daan ne léegi dañuy woote dialogue dialogue bi kon Ousmane Sonko ko indi parce que bu Bassirou bokkul woon dañuy dem élection de bu doon Bassirou bokkul allié allié bu Ousmane élection yi dañ koy tëgg waaye xam nañ ne buñ demee élection yi Bassirou duma dem yow yaa ngi ragal sëriñ bi mu yebal donga bi nga ragal donga bi xam nga loolu itam ay problème la mm. waaye daal gis nga jàmmi Sénégal lu la waaye mën a wax ci loxol Ousmane Sonko la nekk ku ko ci bëgg a génnee ba dajaleew ba def say diil ak loo mën a def soo paree da ko soxlawaat boo liggéey mm. ku ko weddi na nga xool réalité yi moom wane na ko ba mu leer jàppoo nga ne négocier mi ngi am jamono yi wala jàppoo jàppoo yow jàpp naa ne Macky man mën na faa yónnee te waxoon naa la ko ci seen bi nee naa la woon. Ah. Macky Sall bu ma doon mooma damay bàyyi ba suuf sedd. Hmm. ma dem ca kaso ba fekk fa président Ousmane ko su ma demee ne ko sama rakk nga réew mi ñoo ko bokk dañ maa jaxase woon ak yow rek waaye bu ma sañoon de lii jaar suñu diggante lépp ñu bàyyi mu sedd. Hmm. su ko waxoon Ousmane ko ku baax la ku am yërmande la te man xam naa ci dara parce que am na benn jour bi mu ñëw fii mooy ci élection locale yi. bi mu ñëw man bokk naa ci ñi jàkkaarlook moom bi kii di wax ak moom euh, bàyyi jii li def na ko dama ànd ak samay nawle ndax booba dañoo bëggoon mu ñëw ci permanence bi mu ne ko damaa ànd ak samay nawle te su ma ñëwee ba fii ma dem foofa dañ naan ah moom kat daa di daa gisi bokkam daa gisi militant rek daal di ñuy jàmm xam nga nag kuy sàmm loolu te ñoom àndoon mooy yeewi askan wi eh, ñoom euh, euh, kii ñoom kii Khalifa Ababacar Sall ak ñooñu léegi nag mu daan ne damay bañ a ñu jàpp ne damaa ñëw gis samay nit ànd ak ñoom waaw nga xam ne jaarul permanence de foofa la teggee dem Mbàkke ah kon kooku am na du muy sóoraale mm. gis nga Macky Sall bu demoon waxtaanu président Ousmane Sonko man na ne ko ah, man day wax dëgg yàlla jàppal ma dara te Ousmane Sonko wax na ko ci ay vidéo de waaye Macky Sall du ko gëmut wala boog ñi mu moom ñoo ko ci baymut waaye nag bu Ousmane Sonko bëgg woon a def loolu ne day jéggal Macky Sall man d'accord ma ci xam nga lu tax mooy dañ fee rey bakkan te bakkan yooyu dee nag mm. Ousmane Sonko tax ñu génn doon xeex ba seen i bakkan rot kon Macky Sall fi mu ne fa mu waroon a ñaanee jekk Ousmane Sonko da koo passé Hmm. parce que bu fekkoonte ne dañ koo teeloon a lijjanti ca bañ koy tuumaan mbirum Adji Sarr ah. ñu yàq deram wërale ko yooyu yëpp wërale ko adduna bi yëpp ñu dem ba xam na du dëgg Macky Sall daa waroon teel a teggi tànkam daa ne eh, bu leen ma fantoo gis ngeen lii ngeen ni wax ginnaaw amu leen ay preuve teg leen ko ci suuf parce que man liggéey Sénégal moom ma intéressé waaye xam na ko de waaye teew daa bàyyi mu continuer ay bakkan di rot ay bakkan di rot ba euh, le premier soin bi ñu teg seen dialogue boobu gis nga ko booba lañ ne dañuy daal Ousmane Sonko ñaari ati kaso gis nga ko lam jur ay bakkan yu bari wadd mm. ñu gis ñoom ñu jël ay fetal jox ay bandi ñuy tiire ci kaw askan wi xam nga loolu dafa dolleekuwaat ci dossier bi loolu yëmatu ci ginnaaw ba mu defee loolu lépp ba jàpp Ousmane Sonko tëj ci kaso nga xam ne tegu ko fenn jàpp ay nitam ne ay terroriste lañ daal leen dugal kaso tegu ko fenn andiwul benn lay andiwul benn preuve bu leer ay nitam génn fii naan ay terroriste la ay commando ay Robert dara du ci dëgg ñoom ñoo la gën a xam ne loolu ñuy wax ay fen la parce que li lay xamal ne fen la mooy lu tax ñu ñëw ba tey ba démb ñu génne cent cent cinq cent un personnes te ne woon ay terroriste la waaw léegi ñoom xanaa kon kaaraange dëkk bi ñu leen sàmmloo xanaa kon dañ ko bëgg a sàmm ko koo xam ne yow da nga ne ay terroriste dañ fee ne nga xëy xëy bàyyi lu mat juróomi téeméer nit ak benn. loolu bëgg naa ci ñëw oustaz. ci ah. ñooñu nga xam ne ñoom lañ libéré mais ci négociation yi buñ ci buñ buñ ci desee parce que ñu ngi dégg ci ci même euh, contexte bi ñuy wax waxu. loi amnistie loolu tamit ban jàngat nga ci def. waaw loi amnistie man d'accord ma ci parce que bu ñu nee loi amnistie daal koy indi day mel na ñenn ñi amnistie dañoo def dara te Ousmane deful dara. Hmm. ñenn jàpp tamit defuñu dara Macky Sall dana woon détenu politique amu fi. léegi nag kon lu tax mu nangu ne détenu politique am na pour libérer leen waaye négociation moom bu amee itam. Hmm. wala boog ñu naan dañuy def amnistie loolu président Ousmane Sonko jàpp ma ne dana ko nangu man yaakaaruma loolu ku deful moom luñ koy amnistie dafay amul li am solo kay mooy dañ na da dañ na dañ koy tuumaal dara sàcc téléphone dañ koy tuumaal nee nañ ak ak viol waaye waaye nañ ko yóbbu ci yoon bu ñu demee yoon àtte su fekkee moo def te jàpp naa ne defut ndax wane wuñ benn preuve bu defee ñu teg koy daan yee ca war su fekkee defut ñu bàyyi ko mu ñibbi daan na ko nag danoo juumoon daan lay tegi daan jàppoon ne li doon wax dëgg la ndeke du dëgg ba pare nag jégguru Sénégalais parce que bu ñu jàpp mbir mi mbirum Ousmane Sonko dong la Ousmane Sonko daa am ñu ko bëgg am ñu topp ci gannaawam di ko jàppale kon bu ñu defee dara Ousmane Sonko lu metti dafa mel ne def nañ ko ñu bare bare bare bare hmm. kon ñoom war nañoo taxaw ci kanamu Sénégalais yi jéggulu Sénégalais yi nag d'abord waaye nag président Ousmane Sonko amul droit di négocier ak Macky sàll ci loo xam ne ay ñaawteef la yu mu def bu buñ dee négocier daal mën nañoo waxtaan ngir jàmmi mi mën nañoo waxtaan. ngir élection yi am président Macky Sall mënut jël ay responsabilités moom defal li mu bëgg boppam parce que tamit euh, assemblée nationale gis nañ ne li mu fa bëgg rek moo koy am de. waaw xam nga assemblée nationale moom. tey bu ñu bu ñu defee vote loi loi amnistie bu ñu ko defee mooy crime yi fi amoon ak ñi fi jotoon a dee yooyu ñëpp effet yi fa amoon yëpp effacé nañ ko. kenn doon ko toppatoo waaw loolu mooy erreur bi. waaw ah. waaw léegi ñi leen rey nag waaw seen yaay yi fi nekkoon nag. léegi dañ leen di bàyyi noonu rek mbir mu daal di jeex lool sëñ bi day yomb de hmm. loolu day yomb trop maanaam gis nga benn dafa war a maanaam ñi leen rey dañ leen a war a jàpp ñi digle rey bi dañ leen a war a jàpp hmm. te ñan rey seeni doom yi dañ leen a war a dàmp nag dàmp leen alal ju bari hmm. loolu dañ leen war a def parce que bu fekkente ne nit ki dafa yor doomam ba mu dem ba toll ci xale lu góor waroon koo mën a jàppale nga ne ko téel bal mu dee yow mi ko def dara du ci fekk xam nga bu fekkente ne ci nguur gi niñ ko bëgg a doxale dara du la ci fekk fii waaye nag ñoom nañu xam ne nag sawara lañ jëm du samay wax de waxi suñ boroom la mm. ku rey ni tatay ko suñ borom ne na sawara nga jëm kon ñooñu moom lu ñu mën a noos ci àdduna ba bañ def enquête ba jàpp leen dañ leen a war a tëj seen giiru dund bu ñu dee nag féeteeg suñ borom mu dugg leen sawara ndax loolu mooy di ci jaadu mm. waaye daal toog ba mu neex leen rey ay nit def lu la neex xëy-xëy daal ne dañuy négocier léegi dañuy def amnistie léegi bu ñu amnistie day mel na kon ñi dee Ousmane Sonko ne rey kon ñoom loolu lañ bëgg a wax su ko defee ni ñu daal toppeetuñ ko dara ah, ñoom kay loolu lañ yàgg a wax nag ah. loolu kay amul bëgg a wax du dëgg nag yàgg nañ ko wax Ousmane yurul fetal te Ousmane nag bul fàtte ne hmm. saa yu bakkan rotee dañ ko dañ koo téye amul benn yoon boo xam ne Ousmane libéré na ba pare bakkan rot hmm. amul fenn hmm. gis nga président Ousmane Sonko 2021 bañu rey nit ñi boobu ñu ngi ko téye woon Colobane sanction de recherche lañ ko téye woon. section de recherche waaw beneen bi ci des bi bi bi nit ñi di eh, ay nit yore ay fetal di tiire ay nit. Hmm. booba Ousmane ko dañ ko séquestré ay bandee ko séquestré buntu këram ne ko doo fi génne. beneen bi ci des itam mooy bi Macky Sall poussé eh, élection yi pousse na ko. Hmm. ñett bakkan yooyu yoroon booba Ousmane Sonko kam man yor. Hmm. kon Ousmane Sonko moom yorul fetal waaw ku yorul fetal nooy raye. kon kay ki ray am na ku ko jox fetal. nee nañ moo génn noonu moo génn loo xale yi. déedéet bu mujj bi ku ku leen génn loo. ah loolu loolu dégg ñu Ousmane wax loolu de lañ wax ñoo xam nga gis nga maanaam li ma a bëgg a xamal daal mooy état bu Macky Sall ku cay wax dëgg ku ma ràññee man xaw ma ko ku cay wax dëgg ku ma ràññee man xaw ma ko parce que ñun daan yebal ci télé yi ñu daan wax loo xam ne dara du ci dëgg bañ demee ba fen ya teer fuñ mujjee nee naa la woon fii fama daa baadal xaq ila dalal waxi suñ borom la lépp lu nekk ci gannaaw dëgg ak neen la demuñu ba xam ne lii neen ya neen yaa ngi nii dem nañ ba xam ne liñ doon wax dara du ci dëgg nag su fekkente ne dem nañ ba xam ne lañ ko doon tuumaal dara du ci dëgg waaw léegi ña ña doon responsabilité même Ousmane ko bu taxoon ba mu yàgg mu daan ne yéen Sénégalais yëpp génne leen même buñ génnee dee daa war taam mhm. luy ndey rek bu ay nit génnee nga ne da nga leen di rey rey gi moo jaaduwul parce que bakkan nag du caaxaan de bakkan du caaxaan parce que fi mu ne nii. bayu jàmbur bu génn ci mbedd mi kenn waru waxuma laa nag di rey doomu aadama. moom boo waxee ñu ne la boo manifester sax boo fa dee yaa perte. ñooñu manifestation moom dañoo war a lié. ñu koy wax moom dañuy fen rek. parce que hmm. ko ci lislaam waaye képp kuñ ne su ki génnee daa da fa dee yaay perte mën na ko yow da ngaa dara waaye ki sawara la jëm ki ñu rey àjjana la jëm kon kay perte adduna bu metti bi moom seer a seer ku dee kay amul problème. parce que manifestation sax dafa war a am dee moom laa lay wax dama ne la. Ah. ñi naan ku ci dee dangaa ngaa perte laa ne la ñu xamuñu dara waaye ki rey nit ki kooku moom sawara la jëm ki mu rey nag ci ci laaj àqam bañ rey ko kooku àjjana la jëm ne la nag dund bu metti bii Sénégal bu metti gii ak ni ko Macky Sall yore nit ñëpp amatul sañ-sañ wax la bëgg a wax ñu baree bari ragal waaye waaye waaye loola kay boo génnee di xeex sa àq bañ ne la téel a bal nga yow àjjana nga jëm ki la nag bu dee fekk si la sawa moom dem sawara hmm. loolu kay kon ku ciy perte kan moo ciy perte yaa ngi wax léegi euh, ñi ñi xam ne dañ leen a yàgg a jiiñ force spéciale terroriste rebelle ak leneen ak leneen ñoo xam ne arrêté woon nañ leen démb ñu gis ñu libéré leen ñu ci bari ñuy libération en masse ñu gis ko démb ci kaso yi nga xam ne euh, daanaka bari nañ ci réew mi yoo xam ne ay libération am na fa démb ñu ci bari di wax ne ay 500 nangam personnes libération yooyu ndaka nga ko jàngatee yow. waa jàpp gaa jaaduwut woon rek te dinaa la waxal ñaari affaire benn bu njëkk bañ nañ ne ay terroriste la kon ñoom dañoo war a taxaw ne Sénégalais ñun kat dañ doon fen lañ doon wax dëgg. wala boog ñu daan naa kaaraange gi ngeen ñu dénkoon kat mënatuñ koo seere kon dañuy bàyyi terroriste yi ñu génn ñaar doo nga mën a am de. Hmm. benn dañ doon wax bu njëkk ay fen la wala boog bu mujj bi kaaraange askan wi lañ mën a tut gàddu xam nga yow fekki doomi jàmbur nga jàpp ko daal ne la te yow fekkoo ci moom fetal fekkoo ci moom leneen luy gaañ nga daal koy jàpp tëj ko ci kaso xanaa kay ni sax buy génn danga ko war a enquête da war a da nga ko war a entendre. Hmm. bu ko defee ñu laaj ko waaye jékki-jékki rek tëj nit ki ba mu neex la nga jékki-jékki daal koy tijji rek daal di bàyyi mu dem. def nga ne loolu am réew la ba pare nag ko naan ay terroriste lañ man a leen xanaa ñoom bu ñu doonee ay terroriste tey léegi ñu bëgg leen a bàyyi ñoom ñuy génn xanaa kon ñoom kaaraange askan wi dañ koo sàmmatut wala. Hmm. kon xam nga ne ñii seeni wax daal daa jërul jàpp parce que buñ la waxee buñ la waxee téeméer. man nga ne juróom-ñeent fukki juróom-ñeent yëpp ay kàcc la te mag du kàcc kon sax waru koo def waxu malaak nag magum jëmm taxaw ci sa kanamu askan di leen wax loo xam ne dara du ci dëgg kon daal ñoom moom wax dëgg yàlla summeeku nañ ci kanamu adduna bi yëpp ba set wecc ci def yaramu neen parce que li ñu doon wax sénégalais yi ak di ko wax waa bitim réew ñëpp xam nañ ni du dëgg ay terroriste doo leen jàppale xëy xëy di leen bàyyi ci noonu rek loolu moom du wax jeenu maanaa sax mais loolu est-ce wane ne waxtaan mi ngi am waaw waxtaan xëy na mën naa am waaye man li ma waxoon rek laay dellu waxaat taxawoon naa fii ne Macky Sall na bàyyi ba suuf sedd mu dem waxtaan ak Ousmane Sonko jàmmi réew mi ci loxol Ousmane Sonko la nekk ndax moom la nit ñi bëgg su fekkente ne nag dafa da koo ignoré wala muy diglu maître El Hadj Diouf mi nga xam ne xol bu bon la ëmbal Ousmane Sonko wala muy mu Moustapha Diakhaté mi nga xam ne xol bu bon la ëmbal Ousmane Sonko ñooñu bu leen dee diglu ci kàmb doo nga koy dugal waaye gis nga xat-xat yi mu nekk ak problème am mu nekk gis nga waa parti ñu baree bari dañ koy jàmm ñu daan dem ci télé di ko défendre ñu baree bari dañoo noppi kenn déggu leen kon bu réew mi tàkk ñoom kenn du ko defaa défendre kon Macky Sall na jéem a xoolaat boppam te jéem a xool lan mooy njariñam waaye bu fi nekkee naan man kat su ma fi jógee sama nit ñi nga xam ne dañoo àndoon nga mën ta jubadi milliards yi Covid bi milliards yi pétrole bi di di milliards yi nangam ak nangam yooyu yëpp mu naan sama nit yooyu dama leen bëgg a protéger day dugal boppam ci kàmbu dong ndax tamit mënta protéger ñëpp. te itam wax naa fii ba tàyyi ne président Ousmane Sonko Macky Sall bu defee passance de service ak Ousmane Sonko bu dee bëccëg na yend ji sa kaso ba su dee gudd su dee ngoon la na fanaan ca kaso ba loolu laa yàgg a wax te loolu laa gëm ba léegi Macky Sall li mu fi def ci ñaawteef kenn wuru koo bàyyi muy dem ci noonu parce ah, que dañoo rey ay nit loolu nag Oustaz mosu mosu fee am tamit. ah dafee war a am yow li fi def un ci kaso bi loolu mosul mosul am. waaw li mu fi def li mu fi ah. def nii ma saab ku def lu ma saab nag ñu def la lu kenn mës def kenn parce que taxaw manifestation moom daan na fi am ay bakkan yu daan na fi am waaye jël ay fetal joxi nit oto police taxaw seen wet bu ñu rayee ba pare ñëw duggaat ci oto bi loolu dama mus fee am te loolu nag vidéo yi ñëpp a ci teg seen bët nag waaye biñ demee ba nga xam ne télé Sénégal yi lank nañ ne duñ ko wane France 24 moo ñu wane ko heureusement na euh, léeg-léeg manifestation am gars yi di xasa di xasaateeg yooyu waaye ñi nekk ci kaw terrasse yi di film ñooñu itam kenn amul seen fay ndax bu du woon ak ñooma ñaawtee fii kenn du ko gis de ah. dañuy rey nit ñi rek daal ne manifestant yee leen nangam nangam daal daal di bàyyi waaye nag heureusement ña nekk ca kaw terrasse yi kaw étage ñoo koy film ba ba ba te gi ñu doon def yëpp feeñ mm. kon nag moom mi ngi noonu mm. waaye daal lépp lu fi waaye def mm. ci aw ñaaw téef rey bakkan kenn wuru la bàyyi nga dem noonu rek loolu dafa yomb trop waa PDS lan moo nar nekk seen mujj ñoom fii ci ci politique euh, jamono bi waaw waa PDS moom jàpp naa ne yàqu nañ ci politique parce que ñoom bu fekkee dañ doon calculer rek seen calcul ba dafa yàqu hmm. te itam bu fekkente ne Abdou Karim Wade xam nga sax man nee naa la woon Abdou Karim Wade moom jëpp ma ne moom mooy wax damaa jàpp ne rek waa APR ci seen jëmmi bopp Macky Sall mën na caa recruter ay nit sax di leen fay ñu làqatu ci ay faux compte di wax loolu lépp mën nañ ko def waaye Abdou Karim Sénégal ñuru ko hmm. Sénégal intéressé wu ko parce que Abdou Karim doo gis nit de mu tiwit Abdou Karim Wade doo gis crise politique am mu tiwit moom daal bu buñ naan day tiwit ci njariñal boppam doo nga day tiwit kon kay man a ah, man de li ma jàpp du Abdou Karim Wade man daal loolu laa jàpp waa PDS nag ñoom gis nga Woré Sarr da dafa génn weer seen kii bi gis nga gis nga seen Fall. non loolu Woré Sarr weddi na ko de. ah day wax rek. day ko nee xam nga xam nga wax ba pare daal di weddi. nee na audio bi moom. gis nga nit ñi. maanaam war WhatsApp bi mu ñëwee ba léegi. dafa bari lu mu feeñal xam nga da def dara ba pare jàpp na yow ñi nga nekkal yaag ñoom ñëpp yéen a bokk pas-pas ñu génne sa audio nga génn weddi ko daal na dañoo toppandoo sama baat am na ci yoo xam ne du toppandoo de am na ci yoo xam ne voix vrai la hmm. kon ñoom daal ci caaxaan dañu nekk waaye PDS ak moom li ma lay xamal jàpp naa ne jeexal nañ ci politique te gis nga la ñuy wax ba réew mi tàbbi ci loxoy Pastef mën na caa yàgg lool ci ni mu fa yàggee mooy lan waxuma ñuy toog lu ëpp fukki fukki at de déedéet maanaam tey ci misaal Bassirou Diomaye bu jëloon réew mi tey. waaw maanaam mandaam bu njëkk mu fexe ba réaliser réaliser lu am solo loo xam ne nit ñi mosuñu koo foog. Mm. su boobaa bu laajee deuxième mandat dañ ko koy jox. léegi suñ ko ko joxee bu paree moom bu jeexalee mën naa gëm bu président Ousmane Sonko. président Ousmane Sonko bu ñëwee moom itam liggéey lu gën a kawekee su boobaa bu keneen ñëwee day toog gisoo Afrique du Sud. waaw maanaam parti bi nga xam ne Nelson Mandela moo ko jiite woon. dégg naa ba léegi ñoo yore réew ma. lu ko waral mooy réaliser yéen fa def rek. parce que liggéey boo ko defee rek jërul ngay dem di campagne ak yooyu yow boo liggéeyee rek ni ñi gis nañ liggéey bi tey itam boo bëggee laaj deuxième mandat danañ la ko jox kon daanaka moo tax ma ne réew bu duggee ci loxoy Pastef moom mën na faa yàgg lool sax hmm. kon nag loolu moom nañ ko xam. comme ni Benno Bokk Yaakaar bëgg rek ñoom tamit euh, affaire yàgg ci ñoom lañ bëgg de. waaw xam nga Benno Bokk te ñu ngi def seen effort yi ñu am yëpp ñu ngi koy joxe. waaw mais lépp na tege ci culture politique waaw xam nga li bon mooy jël doole état di xeex. xam nga Sénégal dañ naan Macky sàll mën naa politique mën na leen déedéet mën ta politique de Macky Sall doolee état lay politique waaye politique dëgg ki ko man mooy président Ousmane Sonko parce que moo politique ba indi dialogue xam nga dialogue jàppoon nañ ne dialogue jeex na bi mu mujjee def dialogue yëpp guddi bi naan ko gëmmal daa gëmmoon dóor waaw tey nag daa bëgg a xippi xoole di dialogue moom kay na continuer gëmmu waaye daal lu mën a xew mooy <laughs> ah. mag yu mag yooyu ko waroon naan ko gëmmal dóor ak naan ko xippil dóor ah tey jii de moom bu dul Ousmane Sonko de moom bu soobee yàlla bu waxtaanut ak moom du gaaw a génn ci guute gi mu nekk de kon nag booy ba mu jéem a dem waxtaan ak rakkam su fekkente ne ñi ngi waxtaan ci suuf it ah booy boobu mu xam ne daal waxtaan moom bu ko defee mooy li ko war su ko defut mooy li ko war sinon du am jàmm de parce que nit ñi gis nga politiciens yi ngay gis amu ci kenn koo xam ne jaral nga Sénégal yu bari hmm. ñu ci bare bare bare bare boo gisee ñu bañ Ousmane Sonko génn kaso loolu rek xam nañ ne buy génn moom moo occupé espace politique bi moom bu nekkee ci biti moo ko occupé bu nekkee ci kaso bi moo ko occupé kon kay nag wax dëgg yàlla koo kooku moom nañ nangu li yàlla dogal ci moom rek mm. ko nangu li yàlla dogal daal da ngay noppalu waaye boo ko nangu da ngay sonn rek mm. gis naa El Hadj Diouf naan dëkkaruma ci amnistie waaw koo xam ne terroriste la force spéciale toj këri jàmbur lu ne ma wax ko ma ne ko yow moom da ngaa mer rek xam nga ne politique moom da nga ciy jiitu Ousmane Sonko ba pare mu am ci loo xam ne mënoo fexe ba am mm. ñu ci bari loolu la rek lañ ko soxore waaye nag yàlla mooy buñ ñëwaatee ci xam naa ci jeexal la ñuy jëm sax mais li nga xam ne euh, conseil constitutionnel wax na ko muy jëm gi nga xam ne war nañ koo jëm ci ay élection te it rapport ba gis nañu réaction yu bëree bëri yi nga xam ne ñenn ci ay homme politique defoon nañ ko bii moom dafa mel ni bari na ñoo xam ne pare wuñ pour pour pour élection yi am de. waaw xam nga ku jëkkoon moom jëkkoon rek waaye élection moom wax dëgg yàlla loo xam ne juróomi at lañ koy waajal élection xamoon nañ ne 2019 ñu bari xamoon nañ ne 2024 la mandat Macky Sall di jeex ku ci bëgg a waaj kay waajal su ko defee ngay waaj boole ko ak sa liggéey politique du métier. nit est-ce que est-ce que est-ce que xalaatuñ ne euh, jamono bi heure heure bi nekkut à leur faveur rek maanaam bu ñu demee élection keneen euh, am na ku leen gën a positionné wu pour jël réew mi tamit. waa nag buñ ko ko añaane xam nga loolu mooy ñàkk nangu dogalu bi yàlla gis nga waxoon naa la fii ne la képp ku yàlla bëgg a fal day wane signes yi bala ngaa agsi da koy wane. gis nga Abdou Diouf man ba muy nekk président di jàngonte ak Abdoulaye Wade man booba Abdoulaye Wade laa bëgg sama xol donte booba awma carte d'identité waaye maanaam di koy wane da nga gis Abdoulaye Wade ni ko nit ñi bëggee woon. kooko day wane ne kii kat aw na yoonu nekk président biñ demee élection 2000 dem deuxième tour moo gagné moo gagné Abdou Diouf léegi biñ dikkee ci 2011 xoola signes yi liñ doon wane. booba sax bu njëkk bi xëy na njëlbeen gi kenn mës a foog ne Macky Sall mooy génn waaye nag daa fekkoon nag bennoo bennoo sigil Sénégal yaakaar naa la tuddoon ña booloo woon dañoo tas ci seen biir kenn ku ne ber yoonu boppam waaye kon Ousmane Tanor Dieng wala ku mel ne Moustapha Niasse mënoon naa jël réew mi waaye bañ ŋaayoo ci seen biir rek ku ne dëkk ci njariñ di jëme ci boppam rek Macky Sall moom dem di campagne waaye gis nga ko moom itam nit ñi bëggoon nañ ko lool suñ borom wane woon na signes yi bi premier tour bi lay gis nga deuxième tour bi moo mujj génn ñu bari dem jàppale ji ko mu gañe léegi nag biñ dikkee ba ci 2023 signes yi li mu wone mooy Ousmane Sonko mii kat moo nar a jël réew mi xam nga man toog naa fii ba tàyyi na la président Ousmane Sonko li ma gëm mooy wuute Macky sàll loolu yàgg naa la ko wax léegi nag président Ousmane Sonko ñëw ba 2023 ak ndëgg sarax yi ñu ko tegal yépp nag waaye buñ ko ci tegal rek laal dina ko ba jàll léegi nag fan mu jéeg moom mooy ginnaaw ndëgg sërëx bu ñu la tegal nga jàll léegi daal li ñuy def mooy dañ lay forcé tëj la far force foofu lañ mu jéeg moom de ndax liñ ko fi jiiñ yépp sénégalais yoo ko weddil seen bopp lu ñu wax balaa seen kàddoo daanu sénégalais ñu dëgg léegi nag ñu dem ba xam ne kii daal li ñuy wax ci moom gis nga Bassirou Guèye sax ba muy def euh, conférence de presse daa wax bay jeexal daal na ma doole ci beneen maanaam a doole ci beneen fen daal ma doole ci beneen fen daal di wax wax la muy wax teg ca lam teg fan yi gis naa ñuy génnewaat vidéo am yooyu di ko vaar gannaaw bañ defee loolu lépp nag ñu xam ne sénégalais mënuñu leen a gëm ñu daan ne ah Ousmane mii kat ginnaaw mënuñoo wax lu tax sénégalais yi gëm ko léegi daal nañ ko forcer for force jàpp dugal ci kaso bi ñu dugal ci kaso bi mu mel ne dooleem daa gën a yëkkati ko man a leen ah même buñ ko dugalee kaso ba ne du bokk ci élection yi tamit mën a leen ah loolu dala daloon Moussa rek ca Haaruna moo ko nar a dal rek ah Moussa kat bi ko Firawna sonalee daa ñaan suñ borom ne ko haaruna aqi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadkuraka kathiran innaka kunta bina basiran suñu borom ko bëgg kar haaruna mi yi nga xam ne sama mbokk la ñu bokk ak baay damaa bëgg nga boole ko ci sama mu di ma dëgëral suñu borom ne ko may nañ la li nga laaj Ousmane Sonko bi ko Macky saala njatam njatamalee ba forcé ko jàpp dugal ci kaso bi te tegul dara lu leer ci loxoy nit ñi def na Bassirou sama candidat te su ma sañoon ngeen jàppale ma ci yéen Sénégalais ñu ne ko may nañ la nga laaj jàppale ko ca kenn ku ne dégg ñu naan Basirou Sonko Sonko mooy Jomaay kenn ku a dégg ko yaakaar naa ne turu Basirou Jomaay Fay woowu ni mu siiwee ci ci weer yii mu ta siiwee noonu kon nag loola moom même bu ñu randalee Ousmane Sonko yi bu ñu dem élection bu soobee yàlla Basirou jël réew mi te lii nag li ci kanam réew di jël bu soobee yàlla. jërëjëf euh, oustaz ñu bàyyi la nga tàggoo rek ñu jeexal waxtaan. waaw li may tàggoo rek mooy gën a soññ nit ñi rek ñeneen dem leen jëli ci seen i carte lu xew élection yi moom bu soobee yàlla bu amul la vingt cinq bii tamit yaakaar naa dootu ko sori dara waaye kenn ku ne na nga dem jëli sa carte te préparé wu na kenn ku ne jëli sa carte te préparé su ko defee waa Pastef ma leen di wax ne euh, maanaam photo yi Bassirou Diomaye yi flyers yi nañ ko tasaare nañ ko tasaare ba ñëpp gën koo xam euh, xëy na tegtal bi sax du jafe borom sikkim bi te amee faas rek waaw ah, borom faas yu jekki yi rek yaakaar naa ne moom ku ko xool ci photo yi da ko mën a gis ndax ay faas moom am xorom la na ñëpp jëli seeni i carte te préparé wu Macky Sall it ma koy xamal ne ko na fexee teel a bàyyi réewum Sénégal jébbal ko ñi nga xam ne jàpp na ne ñoo koy donn te bu mu ko añaane ndax ku añaane say dono saw ñaaw te itam la ma ko waxoon gis nga bu teggu tànkam fa jëm du baax ci moom de te lu mu gën a xuus nag problème bi di ko gën a wër mm-hmm. fu mu gën a xuus problème di ko gën a war ndax kenn ku ne xam nga ne weer yi de ni mu sonn ak ni mu jaaxle yor donte moo yore alal jëpp nag yore alal moom taxuta am xel mu dal waaw kuy jëf-jëf ji yiw daal kooko dong nga man a am xel mu daal man amila saalihan min dakarin aw unsaa wa huwa mu'min mu'min fala nuhyiyannahu hayaatan tayyiba suñ borom nee na ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla tey jëf-jëf ji yiw jëf ju sell suñ borom nee na danaa leen dundal dundu gu teey kon nag bari alal moom taxuta am dundu gu teey kon bu ko defee ne delloo si xelam moom Macky Sall moomu ne delloo si xelam te fexe ba jéem a organiser élection yoo xam ne ñëpp a ciy gis seen bopp mu fexe ba ku gañe bu mu amul na fexe ba ñëw def yow passation de service ci jàmm ak salaam kon Sénégal yi jëri seen carte yi jëri leen seen carte yi lu si jub yàlla la lu ci dëng man la in uridu illa islaaha mastata dooma tawfiqi illa billah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi sant